Thank you. man la Salvador Nunez euh, fi Grand depuis 92 alors 2012 tawu 2012 bi ci la sama kër mel donc depuis 2012 ngay dund euh, calvaire bu mel nii euh, nak nga koy dundé yow ak sa famille. ah nuñ koy dundé dund gu metti donc parce que sama wa kër yeb danako dañoo éparpillé wu dañoo et c'est tout à fait normal parce que <laughs> les moyens ne sont pas là su moyens yi nekkoon fii moom bon man bëgguma suma benn waa kër même boo takkee jabar sax bëgguma sax nga génn kër gi je préfère regrouper suma waa kër yëpp autour de moi. naka ngeen fi doon dundee en 2012 yow ak sa njaboot une vie meilleure une vie joyeuse. waaw avant avant 2012 évidemment c'est-à-dire bala taw bi di ñëw bon ça on vivait très bien vraiment toute la famille était là vraiment c'était vraiment la joie et la gaieté vraiment c'était extraordinaire. mën nga ma del soit ci ci événement bi euh, taw bu metti boobu tey ba causé dégâts yi naka leen di moment euh, taw <clears throat> bon dafa commencé ay wis ñun ñu ngi woon ci biir kër gi d'ailleurs dañu commencé woon bon comme tawu Grand day métti ñu jël di dajale ci armoire bi di takk di pour mu def poids malheureusement alors suñu voisin bi Adam nous moom moo ñëw di fëgg bunt bi génn ndox ndox donc à peine ñu abandonné kër gi génn juste ci bunt bi te ñu teg suñu tànk ci biti rek kër gi na parce que mur bi ñu de woon ak Benen kër gi daana ko ndox bi envahir kër gi donc kër gi tu c'est à peine si tu arrivé à voir le euh, la terrasse oui euh, mais def na fi quand même à part dégâts matériels def fi dégâts bo xam sans perte de vie humaine wala ben blessé. non non non non pas de perte de vie humaine ni de blessé quand même vraiment yalla a nañu ci ba ñun ñëpp wa kër gi yëpp ils sont sortis euh, en bonne santé vraiment ñu daw ci kër gi nek en face que ñom Tafa ñoo ñu héberger fofu en attendant de voir encore la situation mais ba légui ndox ba ngi won fofu bon donc on est resté là-bas quelques jours après bon on s'est débrouillé quand même. 2012 ba 2020 ngay dundou situation bu melni comment tu t'en sors. ah yàlla rek yàlla rek xam nga loolu dafa metti situation bi ñu jógee fii ci kër gi génne wuñ fi kuddu génne wuñ fi ben yére génn fi ben yére génn fi dara lañ fi wul donc tout était d'or génne nel ñu bagage ci biti évidemment mais sans valeur amatul ben jëriñ mëna a yére mëna toko sol bon matériel bi aussi jarut mënoo mënoo ci qui utiliser donc voilà le problème. Hmm. mais euh, maanaam ni lan nan ngay dundee lan mooy fay su liaas lan moo le parce que gis nañ que Madame le vieux la hmm. Madame, il se débrouille comment. bon je me débrouille <laughs> ben avec les moyens et les enfants aussi Les aussi ngi bon non malheureusement non seulement ils ont le problème de du loyer qui coûte excessivement cher mais aussi euh, da ngay débrouiller rek pour lek bi bo agné tay boo mënul bo mënul rer di nga débrouiller pour rer et puis bon et la vie continue donc on a continué comme ça ba légui ba légui un vieux bu melni yow tay est-ce que euh, ça ne te fait pas mal au cœur euh, ak ton âge tay heure bi nga waroon tok noppalu tay ci sa biir njabot tay yalla indi natou mel. Mm. ah mais bien sûr xam nga loolu loolu la ñëpp di ñaan liggéey ba wacc retraité. Hein? Hein? mais quant à moi présentement pratiquement je vous dis que <laughs> je vous dire que ah, pension pension parce que pension bon voilà comme ça président de la république euh, déclenché plan Orsec ba gagné 10 milliards def ko inondation est-ce que am ngeen ah bon en 2012 en 2012 moi je peux vous assurer que le président de la république ci Diarne, Bofi, na ba Bi, ci mbedd bii ba taxaw xool biir kër ah tonton Ninès yow day sa affaire président taxaw na sa bunti bah, évidemment j'espérais espérais on a trop trop après bon j'ai envoyé des demandes avec des photos à l'appui mais bon mais en vain ba rien n'est en retour mais ORSEC bi Chiakar, avec les 10 milliards Bien sûr, <laughs> comme on avait perdu les 500, bon, on va attendre les 10 milliards pour voir si réellement on euh, dit une tijote. Pour une tijote aussi, ce sera que du bonheur. 2012, 2020, euh, euh, mën nañu peut-être que appel bi gaa ñi dégg ko ñëw le cœur kër gi nga mën ci dellu si waat yow ak sa njaboot. waaw bu ñu ko defaree dama dellu si sans ay loolu rek laa yaakaar loolu rek rek parce que Grand Yoff laa xam bi ma jógee ville ba léegi maa ngi fi Grand Yoff maa ngi Grand Yoff sama kër la suñu kër la évidemment mais fii laa xam xaw ma feneen fi mu feneen fu mu fa dem aussi gan laa fay doon mais fii je connais pratiquement tout le quartier quartier bi yëpp xam nañ ma waaw ñëpp ñëpp xam xam nañ ma donc je préfère vraiment si su yàlla defee te maa ngi koy ñaan yàlla sax plan Orsec bi jàppale ñu ba tabaxal ñu suñu kër yi ñun ñu dellu si ñu ñibbi si ñëw toog mm-hmm. waaw. Euh, Grand Yoff tey bu ñuy wax euh, problème inondation grave dafa mel ni persiste. persiste, la tey xayma euh, manque de volonté politique ou wala manque d'infrastructure bon moi je crois que d'infrastructure, parce que bu bu ñu xoolee taw 2012 bi qui tax taw bi Grand je crois qu'ils ils ont fait déjà une étude assez efficace quand même pour voir que ce bu mu amati fii moo ñu plan OFSEC